lii mooy musique lii mooy musique lii mooy artiste di nga way ba pare doo gaañ kenn doo lool kenn doo sànq kenn doo xas kenn doo sàgg kenn lii mooy musique c'est ça la doo lor kenn doo sànq kenn da ngay nit ñi bëggee nga enjoy yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa ngi dégg jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf